jàngal kookee ñu war a gàll suñuy mbir muy Serigne Touba nan lañ ko war a toppee ak nan lañ ko war a gëmee ak nan lañ ko war a wóoloo kon bu ñuy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall nañu xam ne ñi ngi waxtaanee pas-pas ñi ngi waxtaanee fan la taalibe bi war a teg tànkam ñi ngi waxtaanee nan la murit bi war a mel waaye ñi ngi waxtaanee nan la murit bi war a doxalee ci wàllu xel ak wàllu jëflante diggante nit ak moroomam ndax maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo nekkoon mission ndax mission mu wane wut weesu wut nee na ñaari ko taxoon a jug moom maam Cheikh Ibrahima Fall wane sëñ Tuubaa ba ñëpp gis ko ak samp sëñ Mourou Moustapha ba samp jafe nee na ñaar yooyu moo ko taxoon a dikk biir kaw suuf moom maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima nag soxna Leena maa ngi lay ziyaare di ziyaar sama mag ji nga àndal di ñaan suñ borom defal leen jàmm suñ seexu na ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla yàlla dafa leen jàmm maam Cheikh Ibrahima Fall nag buñ koy waxtaanee daanaka ñu ngi waxtaanee Sëñ Tuubaa ndax daa mel ni bët la cay ñuul ak la cay weex dara munul dem bàyyi moromam ba tey day feeñ ci boo xoolee nataalu ku tedd ki Serigne Touba da gis ñu weex tàll la sol waaye maam Cheikh Ibrahima Fall boo xoolee nataal ba lu ñuul kukk la sol loole rek jàngat la ndax am na ko ma ci doon waxtaanal su ma jumul mbay la ma ne ko foto sëñ tubaa bi boo xoolee sëñ tubaa lim ci sol lu weex la loolu mi ngi wane ni lu taq rek bokkul ci moom ma ne ko foto boo gisee génnewul ay loxoom loolu mi ngi ciy wane ni soxlaalul kenn dara moom Serigne Touba waaye it boo xoolee daa muur gémmiñam loolu mi ngi wane ne maanu na ci ay bi ñëpp du waxal kenn lu ñaaw waaye boo xoolee photo bi benn tànk la ci wone loolu mi ngi wone ni benn jubluwaay la am muy siraatal mustaqim jubluwaay bu dul boobu Sëñ Tuubaa amu ko waaye booy xool mi ngi won ginnaaw baraak baraak jamono yooyu bokkoon na ci lu gën a cher ci jamono boobu bu ñu doon wax jamono yi dañuy wax étage la Sëñ Tuubaa won ko ginnaaw ci photo bi mi ngi wone ni won na ginnaaw àdduna dëkkmal boromam nataalu suñ tubaab bi booy xool loolu la lay jàngal nga ñëw ci nataal ki nga xamee ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina ndax li may wax rek lépp jàngale la maam Cheikh Ibrahima booy xool nataalam bi lu ñuul la ci sol lu ñuul la ci sol loolu mooy ab Baay Faal war naa nangu ñépp ayibal ko war naa nangu ñépp jël lu ne teg ci kawam ab Baay Faal dafa war a nangu ndax daa waxoon ne adoom yoon yi maay royukaay wi tamaay rootukaay bi ku ma jege wii suul digg waaye ku yegg suul maa ngi fi dellu waxaat ne adoom ku bëgg ci liy sëñ bambaam man Ibra Faal ni ma def noonu ngay def nee na lu dul Ibra Faal wasin na biig dégg naa ko biir kër Sëriñ Tuubaa kon ab Baay Faal li ko war mooy nangoo encaissé ndax nee na bi mu xoolee yoon yi jëm ci yàlla dafa fekk góor yàlla yi xëccoo yoon yëpp suñ borom ne ko ñaari yoon a fi des benn yoon a fi des boo nangoo ma jox la ko mu ne ko ban yoon la mu ne ko ñimew tuuma ak joxe ñam Seex Ibra ne jox ma ko kon nu mu jaayanteeg suñ borom la ba mu jox ko ko muy ñime tuuma ak joxe ñam kon Baay Faal faaw dee ñime tuuma yaakaar naa boo dara réeroon rek ku ñu gis nga def ay njañ wala ñu gis nga suusal njaxas boo muytul yow lañ koy jiiñ te amaana sax doo ko jël waaye Seex Ibra moo te ñime tuuma moo tax mu sul lu ñuul mu yàb Baay Faal dafa war a nangu lépp di dal ci kawam waaye boo xoolee ci dënn ba lu weex moo ca nekk loolu mooy wone ni ab sën mbalit mën nga cee sotti lu ne waaye boo wàqee wàqe waat rek suuf su weex ngay gis mu muy ab Baay Faal war naa nangu ñu ayibal ko ci kaw waaye xool ba ca biir yàlla rek moo ci war a nekk moo tax boo xoolee dënn ba la ca nekk mooy lu weex kon nataal lu Seex Ibra bi rek jàngale la ci Baay Faal nan la war a mel waaye it mu amoon fu mu tegoon Serigne Touba te foofu mu tegoon sëriñ Touba jot na fii jamono tollu tembe ñu waxtaane ko ndaw ñi ngir ñu xam ko mën a góorgóorlu ci seen pas-pas ndax Cheikh Bara laa àndal ñëw naa ci kër gi su ma ñëwee amaana sëriñ bi moom xaarul dara ci man sëriñ bi kat mooy yëkkati di ma jox déedéet loolu du yoon wi li yoon wi mooy sëriñ bi bu yëkkatee jox la mi ngi lay jàngal ni ab taalibe daa war di joxe ndax defarkat la te ab defarkat waxtu wu nekk dafa war a nekk koo xamee ni dafay tegu ciw yoon tey tegaate ci aw yoon loolu mooy rôlu ki nga xamee ni mooy ab defarkat kon maam Cheikh Ibrahima Fall waxtu wu nekk mi ngi ñuy jàngal nan nañuy jariñoo ci suñ tubaa ak kan mooy sëriñ tubaa joxal ma ko jëmm jooju ak kan mooy sëñ tubaa ak nan nañ ko war a liggéeyalee ak nan nañ ko war a jëlee def ko muy suñu yitte def ko muy suñu pas-pas moo nu jàng lan mooy ak taalibe ndax nañ ma wax lenn loo xamee ni ñi koy xàmmee li ñuy wax ab murit te maam Cheikh Ibrahima Fall indiw ko ci yoon wi nañ ma ci wax benn ku ko xam na ma ko wax moo fi xewal nuyoo di raam moo nu teree wuyooti naam fekkoon nañuy jàngi fadaam moom muy murit yi di pexe mboole murit yi di ko soow mu mel ni dof bu mat a yeew ba mujj faf ñépp ne siiw meloo ma faf di ko doxe lu Bamba wax mu daal di naaw fóore juree ja sant saaw naan ko da ngay deltu ginnaaw jàngi muritu dim pexe waaye daa dëxañ lépp ñëw ànd ak sëñ Tuubaa ndax laataa muy ànd ak sëñ Tuubaa mbay sëñ Tuubaa daa woote ci Mbàkke Kajoor ne ku fi jàng taxoon a jug wutil sëriñ bu la jàngal waaye man duma ma sëriñu xam la yàlla waaye sëriñu am la yàlla la kon sëñ Tuubaa dafa déclaré boppam mag ñi soo koo dégg ñëw jébbalu ci moom mag ñi soo ko dégg sëñ ñëw jébbalu ci moom maam Cheikh ma Fall nag moom dafa jug di wër sëñ Tuubaa maam Saliou Fall la àndal ci ab tool man Saliou Fall ñax ñaxu sal guuf di wax ak moom ne ko ki war a atte jamono feeñ na kon ban ban tolluwaay la rakki Seex Ibra jooju amoon ba ñaxu sal guuf di wax ak moom di ko xamal ni ki war a atte jamono feeñ na ne ko it bu ma la jiitoo yaay doon maay doon sa kilifa te yaay sama mag maam Seex Ibra damu gopp bi mu nekkoo bi mu yoroon di wër sëñ tubaa sëñ Tuubaa daa woote laa wax déclaré boppam mag ñi soo ko jaayanteeg moom maam Seex Ibrahima Fall nag dafa jug di wër sëñ Tuubaa nit est-ce que dina wër lu mu xamul kii wër ban maqaama la am ba tax muy wër ki muy wër loolu nañ ci def jàngat bu baax a baax a baax a baax a baax exemple bi ma leen ciy jox day mel ni Serigne Touba daa nekk fii biir kër Cheikh Baara Ndiaye connexion taal connexion muy muy connexion boo xamee ni nit ñi ci lañ mën a connecté wu ngir war xam li xew. waaye nit ñi moom bëgg nañoo connecté wu ndax gis nañ connexion bi waaye xamuñu code bi xamuñu fu ñuy jaar boo connecté wu maam Cheikh Ibrahima Fall nag jug di wër sëñ Touba waaye ci ban anoon ma koy wëree moom yëg na ni connexion ba yëg na ni wifi ba moom tàkk na waaye wifi ba kat code ba gars yi xamuñu nu ñuy def ba mën a connecté wu moom mu jug nag di wëri wifi bi fan la nekk kon moom kan moo ko xamal ni wiifi ba tàkk na ba muy wëri wiifi ba fan la nekk kan moo ko xamal suñu boroom mës na xibaar ak jibbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoonu ab murit di aw ba raw pexe marit ba am murit ba am gërëm bari murit te dootu di tex-texi connexion ba tàkk na waaye kenn xamul fan la mu daal di dem tey ba daqaar ngir dégg bam ba di fa xaar seet na sëriñ tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tëdd guddi liste xaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram ko woon koy pexe sëñ Maxtaar Touré moom lañ yónnoon ci sëñ tey ba daqaar sëñ Tubaa yonu ko mu ànd ak sëñ Adama Gueye waaye sëñ Tubaa daa bu mu barkeelu bu mu ko joxoon mu jiital ko ca biir baati nag bëti neen bokkut maam Cheikh bi mu gisee sëñ Maxtaar tombeeg mu doon takkal sëriñ tay ba ab néeg dafa wàcc ci néeg ba ñëw ba ci moom xool ko ndax daa am xol kon kooku laataa muy ñu ci sëñ Tuubaa am na kum doonoon bi mu ñëwee ne ko sa mbubb mii ci biir waxu ko bi ci kaw de mi mu jiital ci biir ne ko sarax ma ko wala nga may ma ko wala nga jaay ma ko sëñ Maxtaar ne ko bi ci kaw de loo ci bëgg ci yooyu mën naa la ko jox waaye bii ci biir moom mënuma la ko jox mu ne ko lan moo tax nga nangu ko bi ci kaw te nanguwoo ko yi ci biir mu xam ne kii kat mbër la mu gis fa Seex Adama Gueye sëñ Maxtaar Touré boole ko sëñ Adama Gueye ngir ñu dem ci sëñ Tuubaa waaye xoolee ba mu demee ci sëñ Tayba la ko wax maam Seex Ibra scénario am ak Sëriñ Tuubaa day jàngal ni taalibe bi dafa war a am fulla yow taalibe bi yàlla nga war a wut ci sab sëriñ sëriñ booy topp te gisoo ci moom yàlla war nga am fitu bàyyi ko fa dem wëri yàlla ndax maam Cheikh Ibra xam na connexion ba fa mu ne bu ko neexoon mën naa jub jubal fa waaye nan la def jàngale ba mu ñëwee ci sëñ Tayba la ko wax daf ko ne dama bëgg nga ñaanal ma sëñ Tayba ne ko lépp loo fiy sàkku mën nga ko fi am mu ne ko dama damaa damaa damaa xëy nga gis ma ma xëy suba ne la ñaanal ma kon ñaanal ma mu ñaanal ko ñaanu jéppite ne ko foo jublu yàlla na fa yiw yàlla yëpp jublu waaye nee na ñaan googu xamul ne sëñ Tuubaa fa la yiw yàlla yëpp daje kon moom ba connexion bi tàkkee rek mënoon naa def direct moom maam Cheikh Ibra waaye defu ko dafa am jaar-jaar mu yow miy topp ki ngay topp da war a xam moom mooy kan sëriñ booy àndal te wunu la yàlla te tegu la ci yoonu yàlla waroo faa continuer di wëyale lii mooy sama sëriñu baay wala mooy sama sëriñu maam wala sëriñ bi dama koo faa waay sëriñ bi da ngaa war xool li ko yàlla jaral nga ànd ak moom ci pas-pas boobu te yàlla rekk tax jaay nañu léegi ak sëriñ jënnee njariñ sëriñ bu leen dootul jariñ du mat sëriñ sëriñ tubaa ne wa rubba abdin qad xalaa hindal oyoon ka annahu qudbraha haysu yabin wa sittahu intasra fil buldaani wa huwa kal xirdu la dar ne bari na ku ñuy woowee sëriñ muy sol mbubb muy rëy ta buy wax nga yaakaar ne aras lay fanaan yi tëllëg yomal xiyaam ngolo mu koy ëpp maqaama ci kanamu yàlla lan mooy maye maqaama ci kanamu yàlla yokk ci ku yegg mu yeggale la topp kuy dem mu gunge la nga ànd ak moom mën a dem mën a yegg loolu mooy maye ab cër ci yàlla ab sëriñ du ab sant ab sëriñ du ab juddu bu doon ab sant wala mu doon ab juddu Sëñ Tuubaa boole ak njabootam dajale leen ne leen du bàyyi kenn du mun jaay kenn Sëñ Fallu jaay ñu réenam jënd ko taalu bi kon ab sëriñ du ab cant ab sëriñ du ab juddu waaye sëriñ cërub yàlla la boo xam ne da nga koy liggéeyal yàlla ba am yàlla ci moom maam Seex Ibra nag jóge Mbàkke Kajoor ci ni kii ki mu war a topp jàngal na la ni koy wër na yàlla nekk ci moom koy topp it na nga ko topp te yàlla rek tax moo tax moom ful la bàyyi sëriñam ba mu jébbalu woon ànd ak sëñ Maxtaar ak sëñ Adama Gueye waaye nee na bi mu jógee Mbàkke Kajoor rek dafa dégg malaaka yi di tëgg naan ku fa njëkk a gën ku fa njëkk a gën ku fa njëkk a gën nee na mu ne foofu mu ne Seydina Jibril déggal ku yeggagul ci sëñ Tuubaa di wax ak Seydina Jibril ne ko xanaa foofu kenn dafaa nekkut mu ne ko ah kay am nañu fa nekk waaye lii tax a gën moom lañ defut ba mu jógee ba Mbàkke Kajoor néegi Mbàkke Kajoor ya nee na malaaka yi dañoo soppi tëggin wa naan bëgg gëm jëf bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf foo yam yaa fa yamale sa bopp kon ñoo xam ni mbiru yàlla ak géeju yàlla ak ki ngay topp mu lay yeggale ci yàlla foo yam ci yàlla yaa fa yamale sa bopp yow sa pas-pas ak sa gëm-gëm ak sa doyloo foo yem rek loolu moo la fay yemale Cheikh Bara Ndiaye laa jokk Cheikh Bara Ndiaye laa gëm waaye yaa ngi xool daray sëriñ bi te xoolee sëriñ bi yàlla ci moom nattoo ci sëriñ bi yàlla ci moom xoolee sëriñ bi li mu nar a li mu li mu sañ a jël ci poosam financé ko te yàlla rek tax xoolaatal sa bopp ab sëriñ boo ko boo boo jébbalu ci moom danga nga ko yooyu ci doxin. roy ko ci waxin roy ko ci jëfin tey xool tànkam fu mu ko teg bu teggee nga teg fa sa tànk foo yam yaa fa yamale sa bopp loolu la Seex Ibra dégg malaaka yi di ko tëgg foo yam yaa fa yamale sa bopp nee na ku dul naa Jibril maa la jàngalu taalu bi moom maam Seex Ibrahima Fall nee na Seydina Ibra mbay yëf léegi jaxasoo na de ñëw ci ab sëriñ damaa bëgg jébbalu tàllal say loxo jébbal naa la sama bopp mu ne la nangul naa la ko ñaan rek tuuf li woon ginnaaw baax na de tey duma ko mës a dingat waaye a baax a baax a baax ba mu ñëwee ci Serigne Touba ku ne dégg na ko la lam lam ko wax la mu waxanteeg moom man Cheikh Ibrahima mi jàngale yoon wi ñëwul rek jébbalu de daf ko ni ñeenti fan ci weeru koor la fa ñëw wii fi ba tàkk na waaye gaa yi xamuñu kot bi te moom moo war a joxe code bi te code bi mooy ab taalibe nu ñuy def ba ab jariñu ak taalibe ba mu ñëwee daa moom ko wax de ku ma yeggale ci yàlla laa bëgg kon ñëw teg programme boppam moom maam Cheikh Ibrahima Fall ku ma yeggale ci yàlla laa bëgg waaye Sëñ Tuubaa it natt pas-pasu maam Cheikh Ibra tax na mu ne ko bu ñu xamoon fu yàlla nekk doo ñu fekk. mun ko damaa topp tànk yàlla ba mu dugg ci sa jëmm ji te tànk bi damaa topp tànk yàlla ba mu dugg ci sa jëmm ji te gisuma tànk bu mu la fu mu la génnee maam Cheikh Ibra ne ko maag yow ñoo bokk pas-pas ndax rasulullahi mi may liggéeyal bu ma ñëwoon jamono fekk mu lu dul ñu ne asamaan sii moo ko daan tiim ci sii la daan dox sama pas-pas may na ma ma liggéeyal ko ba am gërëmam dégg ngeen bu baax rasulullahi may liggéeyal bu ma fekkutoon alquran wàcc ma màkk am ma madinatul munal waraa am ma lu dul ñu ne suuf sii ci la daan dox asamaan sii moom la daan tiim sama pas-pas may na ma ma liggéeyal ko ba am ngërëmam exemple bi lan la Cheikh Ndiaye laa yaakaar moom muy sama sëriñ ci moom laa jokk Ndiaye la sant santul Mbàkke waaye sama pas-pas may na ma ma liggéey ci moom ba am gërëmal yàlla exemple bi mi ngi noonu donc rasulullahi may liggéeyal bu ma fekkutoon dara ci kaw suuf lu dul ñu ne asamaan si moo ko daan tiim waaye ci suuf si la daan dox sama pas-pas may na ma ma liggéeyal ko ba am ngërëmam Sëñ Tuubaa ne ko maag yow ñoo bokk pas-pas waxante nañ maanaam nattante nañ ñeenti fan ci weeru koor ba ñaar fukki fan ci weeru koor ñu soog a signé contrat ba ñuy soo a ànd ñoom ñaar ngir liggéeyal yàlla waaye xoolal sëñ Tuubaa la mu natt maam Cheikh Ibrahima Fall daf ko ni lii nga bëgg na xam ni lu tolloog mbaar bul ko soxla ci kaw suuf maam Cheikh Ibrahima ko soxlawuma fi lu tolloog fépp kawar lu tolloog ko soxla ci kaw suuf mu ne ko soxlawuma fi lu tolloog fépp kawar kon booy wut yàlla ñëw ci Cheikh Bara ne yàlla laay wut ci moom yàlla moo la war a ñor ak nu may def ba jot yàlla ci moom waroo natt dara ci moom naa jébbalu ci sëñ bi ngir su ma jébbalee ci moom mën na ma lijjantil ma am visa dem Europe yàlla taxatul jébbal ga ñaa jébbalu ci sëriñ bi ndax daayira bi kat am na ndaw su ci bokk te su ma jébbalu ci sëñ bi sëñ bi mën na ma koo mbay yàlla taxatul naa jébbalu ci sëriñ bi te sëriñ bi bu ma àndeek moom am na loo xamee ni kat bu ruusee war naa mën a wadd ci man wala xamante naa xaadim bamba wala xamante naa diw diw kat milliardaire la sëñ bi mën naa fexe ba mu jël ma yàlla taxatu daf koo ni lu tolloog mbaar bu ko soxla ci kaw suuf maam Seex Ibra na ko lu tolloog fépp kawar bëgguma ko ci kaw suuf lu fépp kawar bëgguma ko ci kaw suuf sëñ Basiru Mbàkke laaj na ko na ko lan moo waral daara yi waral ndongo yi ak tool yi te yaa waxoon sëñ Tuubaa na ko soxla woon lu tolloog fépp kawar ci kaw suuf mu ne ko keroog ba may jébbalu suuf si taqoon ci sama dëgguwu tànk loolee la ma suñu borom fayee daara yi fayee ma ndongo yi waaye fayee ma tool yi kon liggéeyal yàlla bu la yàlla taxee jug fépp suuf fi lay takk sax suñu borom dala ciy fay mu ngi mel ni jaxasoog soxna su la lew rek mbay ku ko def boo xëyee suba boo sangoo boo sangoo boo sangoo li ñuy wax sangu set ba noppi ndox yi takk ci sa fépp fépp ndox yi fépp fépp yi takk sa kaw yaram rek suñu borom dafa la koy fay kon def li neex yàlla boo ko defee wala yàlla tax laa jug yàlla ñor la fépp suuf yi takk ci sa ndëggu tànk sax yàlla dala koy fay kon nit ki lu muy def rek na yàlla tax loolu mooy li am solo waaye it mu am lu mu jàngale ci taalibe yi sëñ Modou Makhtar Ndiaye mban bi la joor moo nettali ni sëñ Modou Makhtar Ndiaye nee na am na bis maam Cheikh Ibrahima Fall ne ku yàlla bind sëriñ Bamba mu aw fit daan ku ñuy takkaleeg sëriñ Bamba dañoo fob siraaj gàcc ko ci kaw jaxal na ma waaye bis bu ñu fabee siraaj gàcc ko ci kaw jaxal na ma danañ xam ne sëñ Tuubaa yamut ak kenn kon musul yamale sëñ Tuubaa ak dara musul lu ko nduróolee ak dara kon yellut jaaduwut warut képp kuy woote woo Serigne Touba wala ngay woote woo maam Cheikh Ibrahima Fall ngay tëkkale dara ak sëriñ Touba bu ñëwee Serigne Touba nag mooy ki yàlla booleel muy sëf Serigne incha allah ki la yàlla booleel muy sëf Serigne da ngaa war a góorgóorlu ba doo ko tëkkaleeg dara te doo ko róodeeg dara. mas naa wax ak sëñ Masamba Ndiaye wax daan na ko Masamba Ndiaye mu ne ko Fall mu ne ko xanaa ab liir bu nekkee ci biirum ndeyam foofa am réew ma mu ne ko waaw liir de bu nekkee ci biirum ndeyam foofa am réew ma mu ne ko xanaa liir boobee bu génnee ci biirum ndeyam ba ñëw ci biir àdduna xanaa mu gën faa yaa maam Cheikh Ibra nag bu ñu koy waxtaanee taalibe yi waruñoo dégg ni si Ibra la ñuy waxtaanee waaye kenn ku nekk da cee war a jàng ngir def ak sa taalibe mu ne ko waaw xanaa liir boobee bu génnee ci biirum ndeyam ba ñëw ci biir àdduna xanaa mu gën faayaa mu ne ko waaw faal liir de bu génnee ci biirum ndeyam ba ñëw ci biir àdduna mu gën faayaa maam Seex Ibra ne ko képp ku ñuy tudd mbaa ñu lay tuddoo maak Sëriñ Bamba ni àdduna ëppee biir nii nañu la ëppee waxul suñ tubaa suñ tubaa rek de ku ñuy tudd mbaa ñu lay tuddoo maak suñ ni àdduna ëppee biir nii nañu la ëppee ba tey tamit daa jàngale la mooy ak taalibe xanaa xamoo civilisation bu ñu koy wax maam Cheikh Ibrahima Fall tax moo tax ab Baye Fall war naa yeewu waaye war naa xarañ war naa xam fi muy teg tànkam waaye it ab Baye Fall day woyof li waral loolu sëñ Moodu soxna maam Fatou Silla soxna Cheikh Ibrahima la woon doomi sëñ ma ñaaw Silla la soxna maam Saasi Mbooj la dëkk siin soxna maam Saasi Mbooj am na bis maam Cheikh Ibrahima woolu leen. ñaar am na bis maam Cheikh Ibra wóolu leen ne leen kaay leen dem kër Serigne Bamba ndax da ngeen a rëy te lëg damay bañ sawar lakk leen kii doomi soxna la kii doomi ceddo la danaa ci ñëw de ci kàttanu yàlla danaa ñëw kii doomi ceddo la kii doomi soxna la te doomi ceddo ak doomi soxna leen di yëgloo seen bopp day yomb lu tax ma ne ab Baay Faal daa war a woyof tax na maam Cheikh Ibra leen ne leen da ngeen a réy te la damay bañ sawar a lakk leen waaye ana na mu def da leen boole ak benn taalibeem dagg mburu séddale leen ne leen tàmbali leen fii ci sama kër di lekk ba yéegi kër sëriñ Bamba ndax da ngeen a rëy te damay bañ sawar a lakk leen soxna am lañ de ba na mu suñ Tuubaa ne ko maam Cheikh Ibrahima Fall day moo ma yebal nee na ñaari soxnaam yi day dañoo rëy te lëg day bañ sawar a lakk leen sëñ Tuubaa ne dënn ab diir ne taalibi ba boo demee neen Ibrahima Fall xanaa daa gëmul la ma ko waxoon xanaa gëmul la ma ko waxoon képp ku ànd ak moom baabul muridina doo lakk loolu sëñ Tuubaa ma ko séddal Cheikh Ibra nee na ku ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall doo lakk maam Cheikh Ibra bi muy yebal soxnaam yooyu xam na ni ñii duñu lakk waaye day jàngale nii képp ku rëy bokkoo ci moom loolu lay jàngale Cheikh Baara laa àndal moom laa def muy sama yitte. moom laa fas yéene àndal liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye ak oyof moom waral a linkaar sa xool ak sa xel da koy def ci Seex Baara xoolaatal sa pas-pas bu baax a baax xoolaatal tamit li ngay jaayante bu baax a baax kon loolu benn bunt la woon boo xamee ni dañ ko doon ubbi ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina di soñaat ñëpp rek ndeysaan xam naa ñu ñu boole di naan ak noppi rek ndax lekk moom mënul ànd ak déglu waaye ñu boole di naan ak ne patt rek waaw koy ñu góorgóorlu rek te xam ne baati nag bëti neen bokkut sañ-sañ ak sañ si bokkut baati nag buti tayam sago du ko génne baati nag buti tayam sago du ko génne maam Cheikh Ibrahima Fall borom baatin la waaye du borom bëti neen loolu maa ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax baax ku ñuy tëkkaleeg Cheikh Ibrahima Fall ka koy tëkkale daa xamut ndax yàlla mi ñu sàkk moo njëkk a màggal maam Cheikh Ibrahima Fall danaa la ko wax boo <laughs> la ilaha illallah laa ilaaha illallah yàlla moo njëkk a màggal maam Cheikh Ibrahima Fall li may wax nag am na géej goo xamee ni bëgg naa gaa yi ñam ko ci seex Baara te xam naa ni géej googu góor yàlla yu bari ndeysaan am na ñuy taalibe waaye duñ leen ko ñamal <laughs> ndax damaa ne léegi jébbalu ci ab sëriñ jaayanteeg moom bis bi nga jébbaloo tàllal ko say loxo ne ko jébbal naa la sa bopp àdduna ak alaaxira nga pare mu tufli la nga dem lu rafet la lu baax la waaye dafa géej goo xamee ni daa taxoon a jug mag ñi géej googu bëgg naa Seex Baara bokki taalibe yi dama koy ñaan ci barki guddi gi du sa mbir sax ndax xam naa ni xamante nañ man ak yow baaxoo sax di jël nit naan ko kaay ma defal la nangam wala kaay ma jox la nangam waaye bëgg naa nga ñamal ko taalu bii ndax géej googu kat mbay góor yàlla gu am dara ci géej googu nga am dara géej googu kat moom la ñëpp di wër géej googu kat bu guddi jotee góor yàlla yëpp fa la ñuy daje géej googu kat moo yokku maqaama yi géej googu kat moo yokku daraja yi géej googu kat mooy tax sa xol di neex ci yàlla ndax nit yenn saay nga namm dara ci yàlla yëg ni yow am na loo war a am ci yàlla sa biir xool boo toggee intérieurement di nga xam ne am na loo war a am ci yàlla waaye xamoo loolee kat connexion bi fan la ne mooy connexion bi ma doon wax géej googu nag nee naa la daa dem ba Seex naan ci naan ci ba suñu borom di màggal Seex Ibra sëñ Modou la toogal ci ab néeg ci Thiès ñoom ñaar ba toogee ci néeg bi sëñ Modou nee na néeg bi xaw a lëndëm maam Cheikh Ibrahima ne ko Modou mun mu ko Fall li may wax mi ngi ci waxtaanu Murid Saadiq bu sëñ bu seex Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar sëñ Modou Lo dañoo toog ci biir néeg bi néeg bi xaw a lëndëm maam Cheikh Ibrahima ne Modou Lo ko Fall mu a ko jottali ma làmp bële muy làmp pétrole lim ci jublu mooy ngir ñu taal ko néeg bi mën a leer waaye sëñ Modou Lo nee na bi mu ne cas lampe bi dem ba koy waaj a jox maam Cheikh Ibrahima Fall nee na lampe bi daa daal di yëngu. ni lampe bi yëngoo ak néeg bi ni mu lëndëmee tax na maam Cheikh Ibra ne ko adoom motloo Lo bi day toj na géej googu ci la Cheikh Ibra naan ba mu ne sëñ Modou Lo bi day toj na ndax néeg bi lim lëndëm sëñ Modou Lo xool lampe bi gis lampe bi tojut sëñ Modou daal ne ko afa làmp bi day tojut maam Cheikh Ibra ne tekk sëñ Modou daal di teg làmp ba daal di koy taal waaye def koo teg ab diir rek lampe bi ne tellu toj Cheikh Ibrahima ne ko Ado Modou Lo suñu borom day màggal sama kàddu tëj gi ma wax toj na loo tax suñu boroom toj ko ngir màggalee ko sama kàddu kon baati nag bëti neen bokkut yàlla xamul espace yàlla xamul waxtu yàlla xamul heure géej googee ba tey ci la maam Cheikh Ibrahima Fall di defee di dindi ba tax Serigne Cheikh Tall Galo nee na am na bis muy bés maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu yàgg Cheikh Ibrahima ne ko ah Cheikh Tall seen gaal ga day bu mu bënnee ci seen soldaar loolu boo ko déggee 1914 ba 1918 Allemagne ak France dañu doon xeex français yi dem ba néew kàttan première guerre mondiale ne nañu wut renfort biir Afrique ba nu wutee renfort biir Afrique lañ yónnee kër sëriñ si fi nekkoon sëriñ su bari génnee seeni taalibe joxe waaye boobu tubaab bi ñi ma wutu yónnee ci sëñ tubaa ñu yobal Blaise Diagne ngir mu demaleen ci sëñ tubaa ba Blaise demee ci sëñ tubaa wax ko ne ko tubaab bi daa soxla ay soldaar sëñ tubaab daa yéene ne seex sëpp nañu génne seeni taalibe joxe maam seex Ibra joxe ci taalibe yi takku ba joxe ci ñaari doomam ñaari doomam yooyu ñooy kan kenn ki mooy sëñ Basiiru Fall kenn ki di sëñ Abdoulaye Fall Ndar sëñ Fallu Fall nag mi nga xam ne mooy taawu seex Ibra première convent bi njëkk a dem ca la bokk ndax Ndar la ganee woon jamono te jamono jooju ku ganee Ndar jamono nationalité française ngay am waaye ñaar ñi dem ci déggalul sëñ Touba sëñ Basiirou Fall la ak sëñ Abdoulaye Fall Ndar te sëñ Basiirou Fall ñu ngi ko tuddee sëñ Basiirou moom sëñ Touba te moo féetam ak sëñ Basiirou moom sëñ Touba sëñ Basiirou moom sëñ Touba luñ ko tuddee yéen may teew la bu baax te moo ko féete mag ndax ba mu gënee jamono la maam Cheikh Ibra ni maa ngi koy tuddee Basiirou moom sëñ Bamba ma gënee gut jamono loolu bu mu la yéem ku ne xam ne ni sëñ Touba mi ngi fi jóge le 10 août 1895 di dem ci géej gi. te bi muy dem maam Cheikh Ibrahima moo topp ci ginnaawam nan ko màggam sëg dem màggam sëg dellu si màggam sëg dem màggam sëg dellu si loolu ko maam Cheikh Ibrahima doon wax sëñ Tuubaa ku ne xam na ni dénk dénkaane woon na ne gan gi war a feeñ jamono sama ginnaaw bu dee góor la tuddee leen ko Basiiru te xam ne danaa dem te danaa dikkaat maam Cheikh Ibrahima dégg dénkaane boobu dem këram fekk fa gan muy góor donte moo doon wax sëñ tubaa maa gëm sag dem maa gëm gi mu gëm sëñ tubaa tax na mu ne tuddee naa ko Basiru moom sëñ Bamba ma gën a gudd jamono sëñ Basiru Fall moo dem 14 18 ak sëñ Abdoulaye Fall Ndar ak sëñ Seex Galo bi nettali nettali bi géej googee Cheikh Ibra naan ba tax muy def di dindi sañee def loo xamee ni suñu borom du ne déet te kenn fekkewut géej googee ca la maam Cheikh ma Fall defee lii ana lu mu def sëñ Seex Taal Galo nee na dañoo nekk ci réewum France muy guerre 14 18 am bis ñu yëg ci ab gaal waaye gaal gi moom dafa bëtt gaalu français yi la tombeeg am na allemand boo leen doxee ginnaaw bëtt gaal ga ñu dem ba ci biir ndox mi yëg ni gaal gi dafa bëtt te gaal bu bëttee ci biir ndox ana lu ci topp diig moom moo ci topp gaal gi sëñ Basirou Fall ma ngi ca woon sëñ Abdoulaye Fall Ndar ma ngi ca woon sëñ Seex Taal Galo ma ngi ca woon waaye li leen yéem ñoom. li leen yéem ba yéem leen mooy gaal gi suba ba ngoon mi ngi tëmb ci biir ndox mi waaye mënu diig magi bàyyi faale dajaloo ci biir gaal gi di tudd yàlla naan laa ilaha laa yenn saa yi capitaine gaal bi génn nit ñi ana lu ñuy def ñu ne ko dañuy tudd yàlla mu ne xanaa xam nga ne ay minute moo des gaal gi suux te ñun ñëpp dañuy faatu waaye def nañ ay pexe ñoom ba gaal ga diigut ba ñu teer ca waax ba gaal ga moom diigut waaye loolu yéem na leen waaye gaal gi gut waaye ñoom teer nañ fañ bëggoon a dem sëñ Cheikh Tall Gallo la nga woon ci biir gaal ga te maam Cheikh Ibrahima Fall fekk fekkew ko woon muy geeru 14 18 sëñ Cheikh Tall Gallo nee na dafa am bis muy bés maam Cheikh Ibra ba mu yàgg maam seex Ibra ne ko ah hee hee Cheikh Tall mu ne ko Fall mu ne ko Cheikh mu ne ko Fall mu ne ko seen gaal ga bënnuñ ci seen soldaar ga xam nga la moo tax diigutoon mu ne ko déedéet mu ne ko seen gaal ga bënnuñ ci seen soldaar ga xam nga la moo tax diigutoon mu ne ko déedéet mu ne ko sëriñ Bamba nekkoon ca bopp ba man Ibrahima Fall ma nekk ca geen ga loolu moo tax gaal ga su buungoon mi ngi tëmb ci biir ndox mi te munu diig géej googu moo ko maye te géej googu moom la taalibe yëpp namm te fii jamono tollu tembe diaboliser nañ ko diaboliser boo xamee ni seytaane yàq na ko yàq goo xamee ni yenn saa yi nga dégg ku la ne damay lay teg ciw yoon te du la teg ciw yoon ñaata taalibi ñoo fi nekk di xëyee ko gont di ñaqal seenub sëriñ di wetti seenu ñaq di wut yàlla ci seenub sëriñ te yoonu yàlla duñ leen ca teg taab sang day sange wàlliwu day wàlle yàlla lam doon joxe ba tey jugu fi suñ tubaa daa defar ay góor yàlla bàyyi fi góor yàlla yooyu defal ay góor yàlla bàyyi fi ba àdduna di tukki góor yàlla yi dañuy defar ay góor yàlla géej googu gën géej la ku ma ko laaj yàlla nga fekkee déwén ku ci gën a kawe baat yàlla nga fekkee déwén mooy laa ilaha illallah mooy baat bi nga xamee ni ku ko wax dugg nga ci diine waaye ku ko màbb màbb nga diine na ko nit kii di saxoo rek bu ñuuloon sax ñuul kukk day mujj leer bu soofoon day mujj neex nit ñi bu daan mooy yàlla ba kenn bëggu koo xam wala kenn bëggu ta jaxasoog moom ba soxoo baat bi day mujj ñëpp dañuy bëgg a xaritoog moom bu setutoon sax bu yàggee dafay set bu xolam taqee ba ku mu gis du ko yéene jàmm bu la gisee boo ko gisee da ngay bëgg a ma maanaam bu la gisee ab xolam day nooy ab xolam day set day am yërmande day defar xol kon baat boobu jokk ci ku yegg mu yeggale la ci teg la ci aw yoon dafa am solo njariñ la nag loo xamee ni mbokk taalib yëpp laa koy baaxe ci bis bii nga xamee ni bisu gàmm la ñu góor góorgóorlu ci géej googu Cheikh Baara xam nga yoonu géej ga Cheikh Baara xam nga nañ ciy naane yaa ngi may ree njaay de waaye xam nga li ma lay wax bu baax a baax a baax a baax Cheikh Baara xam nga nañ ciy duyalee Cheikh Baara xam nga ni ñuy def ba kenn ku nekk. sa koox mën a fees fexeel gaa yi naan ana ku bëgg a naan fexeel gaa yi naan xam nga ko te mën nga ko fexeel gaa yi naan fexeel gaa yi di dund maam Cheikh Ibrahima Fall fexeel gaa yi nite ndax maam Cheikh Ibrahima Fall ci nite la nekkoon ndax ak niteem moo tax décret bi di jëlee sëñ Tuubaa ci géej gi ñu ñu bari xamuñu ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko négocié. yegg na ci ak nitéem ba xam ni diggante sëñ tubaa ak tubaab bi dañ koo jaxase mu yebal ay doomam ñu dem école fils de chef ñu dem jàngi nasaraan muy signal yu Fall Mbawar di signal ay Fall Ndar di sërif Assane Fall ba nu jàngee keroog ba am seen i diplôme tubaab bi bëgg leen jër ngir ñu liggéey dañoo ne ndigal moonu jàngaloo nañ dellu ci kañ jàngaloo muy maam Cheikh Ibra biñ ñëwee sëñ Cheikh Ibra Fall da yebal ci yéen Jolof ngir ñu dem ci sëñ Touba nekk ci wetam ak niteem moo waral loolu ndax xam na ni diggante sëñ tubaab ak tubaab bi dañ koo ruuxale te bëggul ku jaxasee diggante sëñ tubaab ak tubaab bi loolu tax mu jàngaloo ay doomam taf leen ci wetu sëñ tubaab ngir tubaab bi li muy yónnee ëllëg bu ñëwee ay doomam mën a nekk interprète yi kon kooku liggéeyal ni sëñ tubaab lu ne te daane damay liggéeyal sëñ tubaab ba koo fi su ma fi jógee sama xabru di ko liggéeyal te benn baat la amoon ku xam beneen baatu Seex Ibra na ma ko wax muy laa ilaha illallah laa ilaha nag fexe leen naan ci géej googu at yi day dem de te jot amatut des na tuuti dépense dañuy wër des na tuuti njaboot gi dañuy màgg ñu bari fii boo leen doon bëgg a jàngaloo ngir ñu fer ijji bëgg nañ ko bëgg nañoo mokkal xaside yi waaye nu ñuy def ba mokkal ko mooy seen problème baat bi nga xamee ni nag mooy dundal nit fexe leen naan ci loolu man maa leen ko baaxee bis bii tey di bisub gàmm ngir bëgg bëggul sax kuy dajji géej googu waaye bëgg naa njaay nga nandal ci góor yàlla yi ku bëgg naan nga nàndal ko ci waaye nag dangaa wóoti ci bis boo xamee ni bisu yonent bi la buy gën gi mindeef sëñ tubaa taggee ko nu ne yonent bi day gën gi mindeef ndax guddi gim gën jamono muy guddi tey jii tey xanaa xamoo réewum persia muy muy muy réewum Iran tey dañ doon jaamu ak bënn seen bënn ma ndox ma tàkk na ci ndox mi maanaam dañ doon jaamu bënn bënn mooy montagne yi nga xamee ni ndox day jóge ci kaw di dal ci suuf ndox mi bale na ci lu mat junni at ñu koy jaamu waaye guddi gi yorenti gi gën jamono ngir suñu borom fonk gi ko fonk seen dex ya daa daa di fer sa saasa ngir màggal gi muy màggal Seydina Muhammad am na ñu doon jaamu sawara sawara tàkk na lu mat junni at waaye ba yonent bi feeñee rek sawar sa daa ferke saasa ngir yàlla màggal gi muy màggal yonent bi sëñ Tuubaa bind foofu nii wa ayni za wa tallati qad azumat wa jallati lil furzi adlal millati wa zuyiran kal xaddami xoolal yonent bi ni ko ko suñ borom taaralee sëñ mu Ka nee na at mum juddoo luy judduy góor jigéen judduwul ca mooma lañ màggal góor ga yàlla ngir mooy góoru góor ñi mooy njiitu njiit ñi mooy imaamu imaam yi mooy sang-sang yi moom Seydina Muhammad moo tax ak ñun ma wax ba Abdullahi bàyyi ba demee tukki Yasri ba far dem faato tukki Yasri ba fa yallahu Abdul Mutalib maamam faatu yooyu la ngir ndaw ca mooma at muy juróom-ñetti at ya mu am Abdul Muttalib makka mu taj leen dem réewi saam ngir pexem yéefari yàllaahu xadijatu boole ko santam ba may sanatan li xidmatil Mustafa Muxtaari yàllaahu Seydina Muhammad bis noom demee saam labbeb saam bi daal di taxaw naan waa réew mi kii mooy rasulullahi yàllaahu keroog la labbe ba naan haza rasulun nabiyun sujmulkatin Muhammadun la jox Abdullahi yàllaahu laal waa kër Seydina Muhammad Seydina Muhammad keroog labbe mu naan gis naa ci biir melo mi xar koo xam ne kenn du ko am ku dul Muhammadu Rasulullah weeru koor ga boog sëñ Muhammad keroog laa bébé naan gis naa mu toog fi garab goo xam ne kenn du ko am ku dul Muhammadu Abdullahi yàllaahu. rasulillahi kookoy Seydina Muhammad. Seydina Muhammad keroog laa bébé naan gis naa ci biir bëtam yi xool goo xam ne kenn du ko am ku dul Muhammadu Abdullahi yàllaahu. ku Cheikh Madou Lamine Bara wax leen kan mooy Seydina Muhammad. Seydina Muhammad keroog laa bébé naan leeram gi sar na ci suuf dem sar ci kaw asamaan malaaka malaaka yaag niir yaa ànd ak moom fa yàllaahu. ndeysaan Muxtaar kookoy Seydina. Muhammad Seydina Muhammad kiram la béb naan leeram gi sar na ci dem sar ci kaw asamaan malaaka daan niire ànd ak moom fa yàlla xamul kuy Cheikh Muhammad kiram la béb yindu dénk may saratan bi zifqi wal azmi wal ixlaas yàlla mi Serigne Mbacke Muhammad kookooy Seydina Muhammad taxawal foofu bul dem ci guddi googee mbay mu Serigne Saliou suñu borom dafa jël leer gu musul leer yokkal ko jant bi ñambaas ci weer wi leeral biddiw yi ci biir ak ci biti weer wi di sikkar jant bi di sàbbaal biddiw yi di woy garab goolaal meññet mi saf saf ngir leeruk seydina muhammad ga xanaa xamoo leer na leer du koo xamee ni ku sànni woon poso guddi googu danga koy siin ngir jëmmi seydina oh, muhammad la xanaa xamoo guddi googu leer na leer goo xamee ni képp ku nekk Makka wala nga nekk Xaysara wala nga nekk Ummu Xuraa muy ndey dëkk yi dëkk bu nekk da ngay seen teg sa morom ngir reeru Rasulullah xanaa xamoo ci guddi googu suñu borom leeral na leer goo xamee ni képp ku nekk Makka wala nga nekk Xaysara wala nga nekk Ummu Xuraa da ngay seen teg sa morom ngir leeru Seydina Muhammad ñëpp jóg taxaw ñu màggal Muhammad Rasulillah la ka moo ji saatu lay ajasat ku lal wara leer googu moo tax Serigne Touba ni nuurul azimu qad yara bihi qusuuru qaysara man kaana fi umul qura makata xayru xurumi naka mujisatuna jasat kullal wahra eh xanaa xamoon ne kooku moo tagg garaatu gën gi mi def ndax moo gën a jamono Makka dem Badar dem Xandax dem Xaybar laka mujisatun xadartu kullal wahra e eh, soko gën a jamono makka dem a munawwara dem kofa dem faris dem baytul muqaddas dem badar dem xandax dem xaybar laka mujisaatun ajasat kullal wahra waaye dafa am jàmbaar joo xamee ni bu mu ñëwee ci wetam daf koo ne dànn ba jël garaatu gën gi min mën gi mindeef takk ko kee mooy mën gi mindeef kee ko kee mooy gën gi mindeef waaye kii mooy mën gi mindeef loxate ka ñu magal muhammadu rasulillahi laka mujisaatu lay ajasat kullal wahra dafa ñëw ne dan bàyyi Faatumatu bintu Umu Kalsum Ruqaya Seydina Muhammad muy Serigne Touba nan la ko takkee moom Serigne Touba sanc daaru salaam sanc Touba sanc Mbacke bari ba mu fa moom kot moom rek moo ànd àndut ak kenn moom bàyyi Serigne Saliou ngir liggéey rasulullahi moo dem Ndar dem Dakaaru dem Konakri dem Andulus dem Tambang dem Akara dem Kutunu dem Lagos dem Karamasa dem Koble Bisan dem Bissar Wuli dem Fuluba dem Kintaman dem ñoole ni cëpp maa yomba moom bàyyi Serigne Saliou eh ku bëgg Serigne Touba ñu ko taxaw si kaw màggal Serigne Touba ne jërëjëf Serigne Touba bàyyi Serigne Saliou Mbacke Serigne Maam Cheikh Ibrahima Fall doomi soxna Jaara Buso borom Poroxaan neel jërëjëf Serigne Touba laka mujisaatun lay ajasat kullal wahra tubaab bi def ko joxal bi ne ko da nga xam ne du ma sa moroom mu ne ko waaye da xam ne maa la gën a jege sa borom mu ne ko seex yëpp maay seen seef mu ne ko seex yëpp maay seen seex Serigne Touba laka mujisaatun lay ajasat kullal wahra yoon nan kooku kenn du moom wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba dafa taxaw tabax lool waay jóg leen taxaw waay jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba laka mujisaatu lay ajasat kulal wara bismillahi may taggati Moodu Bamba ngir bëggati déglu leen li may waxati Moodu Mbakke mi jarawee laka mujisaatu lay لي أعجزت كل الورى نزاد لي أعجزت كل الورى مود بامبا مي ماي واي كاي مود الله بوي سوستري خبيبري مي ننشو موي بوير دي كوري لك مجزاد لي أعجزت كل الورى يا دي بامبا مي سيخل يا في أم تنو جيخل كو غرم نيكو يرامل كوم غرم فيسك مي لك مجزاد لي أعجزت كل الورى بامبا مي كو أم غرمم يالا داي رخصتلي مم فالكو يوكو أي درجام كوم غرم فيسك مي لك مجزاد لي أعجزت lal waara bamba mi ku am ngërëmam yàlla day raxas tilimam fal ko yokk ay darajaam kum gërëmu fees ak may la kam loo gisaatu lay aajasat ku lal waara Cheikh Bamba yaay ki njiig yaa nu fii defar ba ñu jag fi si leen seen i loxo jox abba sa ki lay jarawoy la kam loo gisaatu lay aajasat ku lal waara bamba kuy waayam raw na képp kuy maasam gën ku bokk ciw xeetam mbàkke moo fi am mën a fay la kam loo gisaatu lay aajasat ku lal waara xanaa xamoo Sëriñ Tuubaa moo sauvé diine ci àdduna sauvé ko ci Afrique xanaa xamoo bu duloon nag sëñ Tuubaa dér bu ñuul am problème xanaa xamoo ne kooku moo gisanteeg rasulullahi ci daaru Xuddoos doon ko ñaan ngir doon mën gi mindeef moom sëriñ tubaa xanaa xamoo loolu moo waral fi mu fekkoon jamono moo dimbali jamono moom sëriñ tubaa fan la fekkoon jamono sëñ Musaa Ka dama koo wax lan la wax daane bu dul woon nag demam gi wolof nasraanu te kon billahi ñëpp dem niiraanu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu du dogi seefi wuuri foofu nasaraanu yii doomi soxna daal di sampi daara te ñoo nga yàgg jigéen ñi mel ni saara si ne mu ànd ak saara yennu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb ya goor sabar yëpp jaaxaan kenn amatul xasuli waj xillaahi kaa nga ki fóore foofu di jaani laahi l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni lambay Seex Bamba daal di ñaan ci barki jiili na yàlla may safiu kulli jiili may xaadimu rasulu fii soodaani may ramu xarnu bi ani niiraani bur yàlla daal di signé jox yeneen ba mu signé gars yi daal di jiital bamba lisaanu xaal daal di wàqanteeg bamba ca saaru yuusuf mu teeñu yen ba bamba ne maay na ma dalub lislaam bi sëf leen ma jóor ma danaa ko jaamu waaye yen ba nu yoroon xubb ya ak lab daal ya nañ ko moo ko fop raw gaa ya dëngañ di wéy te tawatul baya balaaya sootullah waande laam ci laaya sëriñ si naa naaqis lañu bambaay kaamin mbër yëpp ay suqalañu bàyyi sëriñ saali mooy kaabal xanaa xamul bu ñu ne woon ku kaala wooti dem maa yombe kon góor ñëpp ay musóoru tey raamal bamba bu ñu ne woon ku sol ne dem Congo góor ñëpp marñeeru tey xeeñoo gongo waaye nee leen jërëjëfi Serigne Touba. jërëjëfi Serigne Touba. sëriñ Serigne Touba. Njaay yaaram yàlla nga fi yàgg waaye li tax ma def ko sama digganteeg moom la moo tax tey ma taxaw wax.